الحمد لله الكريم سلمنا على استقال بفروج وسنن الحمد لله الكريم سلمنا على استقال بفروج وسنن شكرته لأنه خسقني لوطن به نفى أدني إليه بتعلي من بعد ما سبب تخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا ak soxna ngone an mu bàyyi ko Bambey eh, ñuy laaj soxna ngone an nan nga dundé magaluk ren gi bismillah soxna ngone bismillahirrahmanirrahim Serigne Bamba ah di sante yalla rek di sante Serigne Touba di sante santale yalla suñu borom di contane lo, di am de. di teewaat fi ci dekk bu tedd bu sel bi magal gi mom neexna lol lol lol lol man at mu jot rek ma am yeg yeg bu bu gatchel ak yeg yegu daw bi. loolu moom lu ma yëg la wax dëgg yàlla di ñaan yàlla ñu fekke ko ay at yu bëree bëree bëri ak mbokku taalibe bi kenn bañ a manqué te ma am lu may laaye biir sama bopp di ko laaye biir képp ku ñuy seetaan di ko laaye biir mbokku taalibe yépp di wax ne nañu bàyyi xel ci ku tedd ki tëdd si biir ci wàllum téléphonique wàllum sina bi ndax ku tedd ki tedd ci biir nga yëkkati sa téléphone di sanab dafa mel ni bàyyiwoo xel ne barab bi xabru la dafa mel ni bàyyiwoo xel ne borom Touba bi muy woote pour ñu sant wootewul pookare demul ba ñëw di woote tey dem ci am nattu di woote ngi ñu santale ko suñu borom loolu moom maa ngi doon laayee bi sama bopp di ko laayee biir mbokki taali bi yëpp pour ñu bàyyi si loolu nañuy gën a bàyyi xel borom bi barab bi nañuy gëna bayyi xel ci warma bi lu ama am solo la nañuy wote bëgg Serigne Touba waye na and ak sel te jërëjëf sant na bu baax baax a baax jërëjëf wa Kumba soxna ci ma sha allah kaddu yi am na solo lool nim ko waxee rek bayyi xel barab bi dafa war ak sa mu melni ñi ngi taxaw ak ay mbokk soxna soxna aadama jiite ngaay mexe soxna aadama mu mel da nga magasi won ñu lay laaj nan nga gisee magal gi ak nan nga ko dundé assalamu alaykum ma ngi leen nuyu di leen ziar di len jox way yen yéen euh di sante seigne Touba bu wéré wér suñu yaakaar tay ak ëlëk ak seigne Saliou Mbacké ñun ay salihat lañ ñi ngi sante bu wér euh, màggalu ren gi ngi moom neex na trop ñu ko gisé par rapport ak euh, daw ren macha allah macha allah neex na trop euh, ñu ngi sante seigne Touba bu wér xéewali bari na magal gi neexna kurel yi neex na fo dugg ni ñangi jang jàng yi dañu ñëwoon sank ñu won ziar macha allah yal na bi yok xewali sutre yi xewali sawan bawan ba ñepp xacc ci barke borom Touba. ja sama Adama jiite san nañ ba xamna ñu taxalu yenen mbokki dal bi ñew rek ñu mëna waxtaan ak kon bismillah ñu ngi taxaw ak sun benn mbokk soxna ñu diko laaj baax nan moy turu ak sante ak fan nga bayiko ko ak noo gisee magal suis wa rahmatullah. je suis à nuyu Je suis sa Je suis sa Je ngi tudd je suis Mbour Ñewon ren na gi ça fait quatre ans que di suis ci mais à chaque fois damay gis ne que toujours fay am ay amélioration si côté yépp nak. comme si que exemple par exemple instant yi ni nek ci période corona ñu xam nga ñi nit ñi ñi ngi xel ñaar naan lii du am ay gens lii du am wala nit ñi duñu ñëw comme daaw ni mu demee ren sax mun nañ ne que ne nit ñi ñëw nañ bu baax mais daaw peut-être que am nañu ragaloon ne duñ ñëw ndax corona be yooyu mais gis nañ ne que peut-être am nañu ñëwul mais màggal gi réussir na comme ni mu waree chaque année mu ngi mel ni koronaa amul dara amul te loolu yëpp mun nañ ne liggéeyu sañ bi la. jërëjëf soxna si kon noonu nga ko waxee rek màggal gi réusir na ni ko nit ñi gisee ndax dëkk bi ni mu daan mel nu ko raw la mel période biñ toll ñëpp xam nañ ko ñuy wax jàngoro ji waaye teewul. nit ñi gis nañ ko mu mel ne yéen yéen a ngi màggal si am fi ay jour ñëw di siyaar si jumaa ji nan ngeen gis mbooloo mi nga xam a ngi dajeek ñoom ak mbooloo mi bare ci biir te kenn ku nekk yéene mooy siyaar sëriñ bi yéene mooy ñaan ay yitteem mën a delluwaat ci gis nga loolu moom dëgg la moom parce que instant yi gis nañ jumaa ji nekk ñun ñi xam nga ñëw nañ depuis vendredi mais ñu ngi naan jour màggal day xat te ji tegoon nañ ne buñ ñëwee dinañ fekk fii xaw a libre mais macha allah dañoo ñëw fekk ñëpp di ziyaare ku si nekk yaa ngi ñëw yiiw sollu yiiw nit ñi tamit ñu ñëw jémi ak ñi fi ne ñëpp ñu daal di ñu accueillir indiqué ñu jàppale ñu daal ba ñu mën a ñëw xam nga lii lañu dañoo yombalal yëpp ñu daal di mën a ñëw ziyaare si jàmm ak salaam ñibbiwaat si jàmm ak salaam jërëjëf soxna si ak saa bisimilah kon mu mel ne am na beneen mbokkum soxna boo xam ne ñu ngi taxaw moom bu ko defee mu présenté wu rek euh, ñu laaj ko nan la yëgee màggal gi nan la gisee màggal gi bisimilah soxna si. waa maa ngi tudd Nanu Cheikh Abdou Lahad Ndiaye mooy sama turu animatrice parce que damay wëngi ci wàllu média ñu may ñu gën ma xam nag si màgget soxna màgget Ndiaye màggal gi macha allah neex na tubaar fa kàllaa euh, sëñ bi. Euh, suñu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram fu mu tëdd yàlla taas ci barkeem ndax lii rek la bëggoon ñu ñëpp ñu jariñoo looloo taxoon mu dem sonn lu nekk dañ na ko ci àll bi pour bëgg xeetu euh, nit ku ñuul siggil nit ku ñuul moo ko taxoon a jóg lislaam moo ko taxoon a jóg roy yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom loolu moo ko taxoon a jóg dafa santaane dafa ne nañ ko nañ ko santale yàlla ñu santale ko yàlla jàng xasidaam yi benn gan ñi lépp loo nga xam ne dañ koy tere ci dëkk bi ñu di ko moytu aussi damay wax sama mbokk soxna yi ndax man damay yëngu ci bërëb bi fii léeg-léeg ma nekk ci rang bi du orienté soxna yi mais lii fi nga xam ne sëñ sëñ bi bëggu ko fii nan koy moytu maa ngi jégalu bu du tuub bu baax ci euh, li ma nuyu xalif bi ñu ngi koy nuyu Mbacke Balla sëñ Mountakha Bassir ñu ngi koy nuyu xalif général di Mouride ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla mu yàgg fii te ci liggéeyub maamam bi mu oyof toy ci kawam yàlla yàggal ko fi di nuyu sama bàjjan soxna Ndiakhate Mbacke Baye Fall moom sëñ Cheikh Fall Mbawor di nuyu Cheikh Abdoulahat Ndiaye xalifa sëñ Mor Ndiaye àndal di nuyu Sénégal àdduna bi yëpp di nuyu murit yëpp di nuyu taalibe yëpp mais fu ma doon ñëw sànq ci soxna yi mooy pose ongle yi xeef yi nañ koy moytu ndax sëñ bi lu mu santaane ci dëkk bi na soxna yi di ko moytu ndax dañ ko daan def at yii muy métti bu soxna yi ñëw dañuy pose xef dañuy pose ongle dañuy nekk ci barab bi fii dañ leen koy tere ba soxna mais boo seetloo ren jëwriñ ñi dafa mujjee ni leen nañ nañ leen bàyyi noonu mooy loo nga xam ne yiwul rafetu jekkul sax dëkk bu mel ne tuubaa sëñ Touba woote pour ñu sant la ko yàlla boo xalaatee yow moom la mu daj ci àll bi lu nekk daj na ko pour siggil xeetu der bu ñuul war ngaa boo fi ñëwee war nga mën a sellal tey wéy ci ndigal ndax murit day doxee ndigal wéy ci ndigal lépp loo nga xam ne bëgguñu ci dëkk bi nay soxna yi di ko mboytu mooy pose ongle yi yenn yi nga xam ne dañ koy def du ko dugg ci jumaa ji sellul ndax euh, kiiwul ah am boo koy def sa amul amul njàpp mënoo julli mënoo def na parce que mënoo pose ongle di julli wala nga teg greffage di julli wala nga pose ay xef di julli te soxna yi dañ koy def def nañu ay plateau wax nañu ba sonn nañuy jéem di di moytu ndigal yi nga xam ne sëñ bi da koy teg ñu koy xotti léeg-léeg war mooy dëkk bi di ko def na koy soxna yi di moytu ak lu yaraax yi nga xam ne moom ko leen ñuy sol ci biir dëkk bi di ko wëndeel ak moom te ñu war maal dëkk bi ndax dëkk bi dëkkub Sëriñ Tuubaa la te lu baax rek la fa bëgg ñu ngi sant ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp taw taw fex ak tay siir jërëjëf. jërëjëf soxna si macha noonu ma ko soññee rek ndax yaakaar naa jigéen wax mbokk soxnaam dégg ko day gën a yomb ci góor mu mel ne kon noonu ma ko leeralal soxna yi nga xam ne day ñëw ci barab bi ñuy bàyyi xel wormay barab bi ndax barab bi daa mat a wormal bu baax na ñëpp di bàyyi xel sëriñ bi nga xam moo fi tëdd mu Seexul Xadim yaakaar jaam ni war na nañuy bàyyi xel lool bu baax baax. والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي خزي